dal leen ak jàmm mbokkeen tox na ci yaatal vision ñu di koy yéen ca la gën a fees dañ koy daal di door nag musiba Mbaba Kumba nag las ko mën a jàppee daal di tukkee nag jëm ci ki nga xamante ne bii moo di Lat Diop ancien ministre des sports ci jamonoy Macky Sall nag la ko daal di nekkoon nag moom Lat Diop ni ki ni tey jii la ci sept heures suba ñu daal di ne ko niip teg loxo loolee nag la ñu daal di koy jàpp nag mënee sugu koo xam ndaxte dara nag leerugut ci li tax nag ñu daal di jàpp nag ancien ministre des sport boobee di Lat Diop ginnaaw nag bi nga xamante ne nekkoon na ministre de ministre de sport ci eh, jamonoy Macky Sall nag moom mi la di Lat Diop nag ginnaaw nekk noonu ne nag ca màggal ak Touba gi rek jàll na ko gis foofee ca dëkk bu sell boobee di Touba waaye nekk tey jile nag ci fajar dañ koo daal di nag teg loxo moom ancien ministre boobee la tax nag ñu daal di koy teg loxo nag mënee suguti yi yàbbi ca waaye nag des na def gëstu ba xam nag la tax nag dëgg-dëgg kii di Lat Diop nag ancien ministre boobee ñu daal di teg loxo lan moo waral nag ba xam dafa daal di laali nag ci alal joo xamante ne bii daf ko euh, comme ni ñu ko doon waxee rek alal joo xamante ne bii alalu njaaj la wala leneen loo tax ñu teg ko loxo nag loolee lépp des na topp nag information yi indi leen ko fii nag ci Yaatal soo ko abonné gul nag ñu ngi ñaan nga abonné bu baax ci sunu chaîne bi ngir lu ko mën a jëmale ca kanam